tout le temps mhm. ñi ngi seet li gën a suufeel parce que xale bi mhm. xam nañ li muy def dafa baax mhm. te chaque cinq jours ñu ngi ko gis day riij dix bërigo ñoom riijuñu loolu il faut ñu jéem a salteel soo ñëwee ci ndayaa aw ma moom problème seetaan naa interview am mu ne parewuma pour jubóog maam Ndiaye Savon day wax lu ko neex maa ngeeg vidéo am bi mu taxawee di live naan ki ma bëgg a wujjeel jëkkëru maam Ndiaye Savon laa bëgg a wujjeel ma lay lancé naan la ma jëkk sama jëkkër nga bëgg a wujjeel te benn attaque laa attaque rek nga daw di jooy. Mhm. muy dama la ne téléspectateur people 221 yi ñuy ngi leen nuyu. di leen jaajëfal di leen ziar di leen ñaanal jàmm di kilifa diine ak sunu kilifa aada yi di seen chaîne leader bii di people 221 tey nag ñu am euh, gan goo ne ko présenté ci réew mi fan yii nag dafa poñe réew mi jëlay engagement am ci réew mi mu di Mame Ndiaye Savon moom lañ fas yéenee waxtaanal euh, dañ lay bàyyi nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo lay suivre. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di nuyu képp euh, kuy fan sa maam Ndiaye Savon di nuyu ñi ñu seetaan ñëpp di nuyu yéen waatele bi yéen ñi ñëw pour def seen émission maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Mm-hmm. Mm. Euh, mën nañu xam maam Ndiaye fan la fan la fan la fan la jàngee métier mi dafa tëb tëb rek dugg ci wala daf ko jàng daf ko tarbiyu. waa métier bi mën naa wax ni dama ko tarbiyu parce que loo doonul ndongo doo doon sëriñam. Mm-hmm. tarbiwu naa ko jàngal nañ ma ko. Mm-hmm. ba ma mën ko maîtriser ko yàgg nañ ma ko jàngal mais mosuma ko def métier. Mhm. dama ko daan def pour di ko defalaate ci gratuite. Mhm. léegi ñi ma koy defaral gratuite ñoom ñu dem ba ñëw ma leen di defaral ñu koy yóbbu di jaay di dund sama kaw ma ne pourquoi pas man mënu ma mënu ma ci dëggal sama bopp. Mhm. métier bi ñaata at nga ci def. métier bi bi ma dalee defar diw ak léegi war na mat cinq ans. cinq ans mais. boobu jaayuma ko. Mhm. bi ma ko commencé jaay bu matee deux ans ci la yam. Mhm. bikit bi un la am. Mhm. un an bi maa ngi ko defee sama kër. Mm. saabu yi fan nga koy jëlee da nga koy defar wala da nga koy da ngay dem di ko importer di ñëw di ci liggéey. waa saabu yi nag li ci bari importé la. Mhm. saabu yi lu ci bari importé la. Mhm. parce que man li may euh, utiliser produit Faylandre moo ëpp. Mhm. léeg-léeg damay utiliser Abidjan parce que Abidjan ñoom it dañuy importé léeg-léeg. du du du chaque jour lépp ñoom ñoo koy defaral seen bopp. Euh, kon donc foo jëm am na importé. te li ma ci utiliser importé moo gën a bari te gisuma ci danger. mais ñu gis ni nag fan yi coow li bari na trop li ko waral coow piling bi lan mooy secret piling ak lan mooy piling. waa pilin bi nag moom moo yëngal réew mi. Mm-hmm. te coow li waa Sénégal dañ ci yéex a jot. Mm-hmm. koor gi koor la woon. Mm-hmm. coowu piling bi koor la woon. dama ko dugal waa Dakar Buzz jël ko. di ci wax lu nekk. naan waa dermatologue dañu war a jóg parce que li am fii mu nekk kii di def lii kii di def lii xam nga coow li bari. yaa ngi dégg parce que piling bi li ko tax a jóg mooy. comme jaaykatu diw yi dañu fi nekkoon di jaay diw. mais dañuy jaay nit plus de trois mois du xees. Mhm. ñoom daf leen di jaaxal parce que li ñuy composé dafay baax. Mhm. mais du nu du nu jaayee nit du xees. Mhm. fekk diw dafa am ordre. booy diw soo amee peau morte doo xees. trois ans boo ko doon diw doo xees. da ngay yor teint maroom maa nga yor teint clair. ñu bari ñu ngi nekk ci réew mi. di xeesal mënuñu fexe ba xees. parce que loolu moo ko waral. pling bi day piling yaram mhm. piling yaram bi du xolli yaram day xëbal yaram mhm. bu xëbalee yaram bi ba peau morte bi dañ daan dix jour parce que dafa foor mhm. dix jours la limite bi am léegi boo ko defee dix jours boo ko jëlee boo diwoowee sama diw da ngay xees diw boo mun ci diwoo ci àddina da ngay xees parce que peau morte bi dañ na léegi ñoom si fekk euh, peeling bi jaaxal na leen ak ni ma koy defaree ñi jug naan sama peeling di defar mais mënuñu peeling parce que peeling bi ki ma ko jàngal ñàkk la peeling bi du école bu koy jàngale amul professeur. Mm-hmm. amul fenn fooy dem ci àdduna ju dul ko jàngal amul. Mm-hmm. ki ma ko jàngal cadeau la ma ko jox. Mm-hmm. parce que dañu nekkoon man ak moom. mu nekk ñag ñuy létt. moom da liggéey ci salon bi maa ngi nuyuwaale borom salon bi jaal si la bi fa nekkee di moom da daan weex te man daanu ma weex. te damay diwu te du xees te damay diwoo ay type diwoo lépp di frémé man duma xees. ma ne ko diw man damay diw duma xees doo ma defaral diw. mu ne ma jàppale ma létt su ma paree dinaa la jox kado ñu pare mu daal ne ma jëndal lii ak lii ak lii ma ne ko loolu du diw de. mu ne ma mhm. da koy jënd liquide la ndox bi États-Unis lay jóge mhm. mais boo demee dinañ la ko jaay mais mhm. nekkul pour diw. leneen moo ko tax a jóg mais yaram la jëm. ma dem jënd ko mu composé ma ko ma toog di ko seetaan mu composé mu ne ma boo koy defati nii ngay def. mu ne ma bu dee 500 ml lii nga koy yamale. bu dee 300 ml lii nga koy yamale. bu dee 700 ml. lii nga ma ne ko ah mu ne ma waaw. léegi ma def mu defaral ma peeling bi ma diwa ko 10 jours sama yaram bi xolleeku mhm. xëpp lépp jukk mhm. léegi ma ne ko man sama yaram bi yëpp dafa xolleeku mu ne ma da ngay jël vaseline bi nga xam ne moom la ñuy léttee mhm. nga di ko diw sa yaram muy top xeer parce que top xeer man maa tax cosmétique yi kenn amatu ko parce que day hydrater peau day defar peau te nit ñi dañu foogoon ni ci mees rek la baax yaa ngi dégg léegi bi ma waxee loolu ma jël ko diw ko dem sangu ji lépp dañ. Mhm. mu ne ma léegi demal nga jëndaat lii ak lii wanaan ma composition diw. Mhm. wan ma bu saabu nan lañ koy defee. Mhm. léegi ma liggéey salon salon amul xaalis ma bàyyi salon parce que sama yaay. dooleem bëriwul te yaruma. te yaakaar na ci man te man maay taaw sama taaw papa. il faut ma jug ma dem dimbali sama yaay. ma dem di ambulant marché seng di dem di jaay table di jaay ay palaat jaar fu metti daal. léegi su événement jotee. ku mel ni ñoom Seyni Gawlo mhm. ak ñëpp dañuy ñëw ne ma maam Ndiaye Savon maam lañ ma daan woowee mhm. dañoo bëgg nga defaral ñu diw sama jëkkër dafay ñëw mhm. wala mu indi ay nitam ne ñii dañu bëgg a julli ji defaral leen diw wala dugg na fi génn na fi bu ko defee ma leen di jàmbal diw ci gratuit ni may fay ay 2000 buntu palaasu Adjaaloo laa ko daan defee ñoom xam nañ ci dara ñoom aji daara parce que fa laa daan nduggee li ma daan defar. Mhm. chaque jour fa laay nduggee. Mhm. ba événement bi di waaj a jeex. Mhm. damay defar ay diw. di ko jox ay nit ñuy weex fu ñu dem di julli ji wala dara dañ naan ne waaye xees nga. ñu naan man maa leen defar bu ñu ñëwee dañ may may ay 1000 francs mu am ku jugee feneen ñëw pour ma koy defaral muy dem di jaay. ma koy defaral su ma ko defaree 10 000 may may damay foog ni man am naa lu nekk. ndaxte moom mi ngi dem di jaay moom mu ngi ci am lépp. ma gis moom situation am changé te man sama situation changé wul. te man maa yor xam-xam boppam bi. Mm-hmm. mu ne pourquoi mënu ma dëggal sama bopp. Mm-hmm. ma jaay événement ba pare. Mm-hmm. ma daal di jàmm diw. saabu laa njëkk a jàmm mu jeex. xale yi xam nañ dama mën a defar saabu. ma defar diw mu jeex. léegi am koo xam ni moo ma moo moo ma poussé ci euh, piling bi parce que fàtte woon naa piling bi. nday caam la tudd. mu ngi dëkk yëmbal. sama cliente la dafa dem wër jaaykatu diw yëpp mënul fexe ba xees. mu ñëw ma jox sama diw xeesul. mu ne maam Ndiaye yow laa joxoon sama yaakaar. Mhm. jaay nga ma diw xeesu ma. Mhm. léegi man si fi kan nday caam wax na ma loolu dama dama dama perturbé. Mhm. léegi ma toog ma ne man nday caam lan laa ko war a defaral ba ma sama xel dem ci piling bi. ma ne kon dafa am peau morte. moom moo tax mënul xees ma dem dugg piling bi ci saasi. mu doon siwo. ma mm-hmm. ñëw ndugg ko comme Ibrahima ne woon na ma bu dee 500 ml te 500 ml moo ci jaay lii moo ciy dem ak lii ak lii ak lim mm-hmm. ma jënd douzaine mm-hmm. douzaine bi lépp ay cinq 500 ml la bu ci nekk ma def ko produit am def produit am def produit am ba mu mat dosage bi ma daal di koy sol woo ko ndey caa mun a ma ni ko kaay bul jënd dara ñëwal dama lay remboursé jox ko piling bi 5 jours daram yëpp di xollee ko mu woo ma ne ma maam maam Ndiaye sama sama tër yëpp na ma ne ko parce que dañ ma jàngaloon loolu mais dama ko fàtte woon mm-hmm. te dañ ma ne woon képp kuy jaay ku koy jox diw muy diwu mm-hmm. mu diwu te xeesul xamal ni peau waxtu moo ko téye mm-hmm. te xam naa ni peau waxtu bi moo taxoon xeesoo nday jaam ne ma dëgg la après mu ñëw jënd diw def ma cliente nekk ku baax léeg-léeg ñu dem ba séq ay waxtaan ñu dem ba ba ba may ba may expliquer ay bill privé ñu dem bay partage yaa ngi dégg léegi ñoom civique gis nañ may jàmb pilin mhm. pilin bi mi ngi fuur ñoom xamuñu lan la ku si nekk dem wuti loo jàmb mhm. léegi am na ñoo xam ne dañ lay jaay ne la piling la mhm. nga jënd ko sa yaram def neen na. Mhm. soo nee man de piling lañ ma jaay te xam nañ ni man maa moom piling. Mhm. dañuy dal ci sama kaw ne maam Ndiaye Savon moo defar piling bi. Mhm. mais man piling bi may piling amul danger. man piling bi may piling amul danger. Euh, piling bi may piling samay employé samay lépp ci la ñuy piling. mais bari na nag ñoo xam ne ñu ngi naan piling bi yaa gaay da nga ñu def ay mise en scène nii di ko mbuboo mais piling bu tàng bi dëgg-dëgg yoroo ko. léegi Alaaji Fàllu laa yaakaar àdduna ak àllaaxira damaa yaakaar ni dama koo waat ba mënatuma waat. bu fekkee man mës naa fay nit. Mhm. wala ma jël sama portable woo nit. Mhm. ne ko damaa bëgg ñu joué maag yow benn wax. Mhm. nga ne man maa la jafaral maa nga diw yàlla na ma yàlla rey. rey a gën a fort. musuma complot ak nit. te démb benn journaliste ñëw na fi toog fi. di ma interroger tombeeg benn xale bu jigéen bu ñëw. génne ay preuve dama ko jaay piling bi mu diwoo ko yaram bi lépp xollee ko mel dañ ko sotti ndox mu tàng. parce que civique der yëpp génn na. nee na mu jug dem jënde ñu woo ko mu woote ñu ne ko jëndal lii nga def ko ci mu jënd ko war a sangu mhm. vidéo ko ne après ak avant mhm. seen waa kër gis après bi ñoom ñëpp di yuuxu mhm. nag ku sa yaram bi yàqu na mu dem sangu der yëpp dañ mu weex tàll léegi benn jaaykatu diw ki ma ko wax aadama la tudd mi ngi dëkk tuubaa nee na ma waxal aadama tuubaa boo ko waxee jaaykatu jiw bi dina xam ni man la waxoon daf may fay fukki junne wa jaaykatu jiw bi ne ko dama lay fay fukki junni ban jaaykatu diw la non bëgguma tudd tur. waaw parce que du ma bëgg a tooñ. Mm-hmm. parce que ñoom dañu taxaw ni dañu yor preuve. Mm-hmm. mais bu fekkee ni danoo yor preuve bis ñu ko génnee. Mm-hmm. bu boobaa ñu xam ni man ci preuve laay dox. bi ma juddoo ba tey ci preuve laay dox. ndax yaakaar naan ku juddu décembre. kon preuve mënu la jaaxal. mu mel ni sax coowul piling loolu noonu moo indi sa sa sa sa problème yaag yaag ndeyaa fa la commencé. waaw jour bi nga njëkkee génn ni piling bi bu ko kenn jënd ci ku dul man. waaw léegi xale bu jigéen bi damay eggali ba mu mhm. ñëwee mhm. mu fekk fi euh, journaliste bi mu mhm. génne ay vocal génne lépp mu wane mu ne kii daf ma fay fukki junni pour ma jaay ko photo yi nga ma defaree les peeling mais damay gor ñaari góor jur ma ma dugg ñetteel leen. parce que maa ngi ni weex tàll. te bi sama yaram tegee der ma foto ko. daf ma ne naa ko jaay fukki junni pour ak vocal yi wax ak sama raq pour ñu ne yaramam yàqu na. maam sa Savon lii lay def. léegi ma bëgg a laaj moom kooku noonu jaaykatu diw bi yaw mi def lool lan la lay apporter. lan la lay apporter nga wax ko yàq sama image. Mhm. yàq sama. der der. Mhm. yàq sama comportement. Mm-hmm. te li may jaay dama ci yor employé cinq employé laa yor yoruma bikit bi mm-hmm. cinq employé neuf cak-cak ñoom ñëpp man la ñu yaakaar. Mm-hmm. kon Sénégal nañu seetaat waxin. seetaat doxalin. jéem a tàppe xol yi. parce que tey étranger bu jógee woon feneen ñëw fii di ko di liggéey. dañ koy dooleel. ñun doomu réew mi lu tax mënuñu ñoo dooleel. parce que jaaykatu diw soo déggee ñiy wax tout le ñu mag ñi ñooy wax jaaykatu diw yu mag ñi. parce que bu ñu le temps. ñi ngi seet li gën parce que xale bi. Mhm. xam nañ li muy def dafa baax. Mhm. te chaque cinq jours ñu ngi ko gis day riij dix bërigo. Mhm. ñoom riijuñu loolu. il faut ñu jéem a salteel. soo ñëwee ci ndayaa. aw moom problème. seetaan naa interview am. mu ne parewuma pour jubóog maam Ndiaye Savon. day wax lu ko neex. kenn mënu ko reetaanloo ci àdduna ku dul man. maa ngi vidéo am bi mu taxawee di live naan ki ma bëgg a wujjeel. jëkkëru maam Ndiaye Savon laa bëgg a wujjeel ma lay lancé naan la ma jëkk sama jëkkër nga bëgg a wujjeel te benn attaque laa la attaque rek nga daw di jooy. Mhm. muy dama la ne bu leen jënd euh, lotion. Mhm. lii ak lii ak lii ci lotion. Mhm. nga génn di jooy xam naa ne bi mu koy wax dafa fort. da doon da doon ambiance te ku ko doon may un million. du wujjee sama jëkk du mu du wujjee ak man. Ah, dafa pare pour nangu sa jëkkër. non loolu kaf la. mais comme man. moom ñemewu ma attaqué. kon kooku xam nga du du wujjee man parce que da doon foo. Mhm. mais dama leen di wax pour ñu xam ni. Mhm. Seydina Muhammad rek laa yaakaar ak El Hadj Fallou Mbacke. Mhm. parce que damay jullit. di wax baatu laa ilaaha illallah. du ma tooñ. dama génn. nekk ci oto. direct ba pare am ku ma envoyé ay tànk mu neewi mu nekk hôpital. mu ne ma dañ ma jaay lotion jaay ma crème mes sama tànk yi futt ma ñëw hôpital ñu xotti ko enterré ma ci direct bi ñëpp ma doon déglu ma envoyé ko ma ne ko dama lay envoyé vingt mille yaa ngi dégg ma ma dimbalee ko ko ñaanu ma parce que am na lu mu fajoo mais sama xol dafa tooy may demaat Dakar pour jëriñ samay produit am ku ma woowaat ku nekk extérieur wan ma ay tànkam moom lañ ko jaay ci laa jël sama portable vidéo ma ne bàyyi leen leçon yi leçon yi baaxul leçon day yàq tànk parce que leçon ñi xam li may wax leçon boo ko ubbee rek day naaw ci kaw parce que di solvant lañ ko defaree. Mhm. ñi xam leçon. Mhm. leçon boo ko dee fomp sa kanam tout le temps mooy waral boo ko bàyyi sa kanam day xëm ba doo mën a xool nit. Mhm. leçon man dama koy utiliser. mais Sénégal boo waxee benn affaire ñoom du ñu xam lan moo tax ngay wax lii ñoom dañuy seet safaan bi pour ñu mën koo wax pour yàqal la yow mhm. sa day fekk yow ñoom yi dañuy foog ne dañu lay yàqal mhm. mais seen bopp la ñuy yàqal mhm. parce que doom ju ndeyam gërëm boo koy xool ne ko jàkk ci kaw kon yow da jàpp ni produit yooyu noonu di yàq euh, yaram ndaya moo koy jaay ñee non non ndaya jaayu leen ko jaayu leen ko de lii may wax dama koy wax parce que télé laa nekk ñëpp dañ may gis. Mhm. mais kon gis naa moom mu diwoo moom dafa diwoo lotion. ndaya ndaya dafa diwoo mhm. def ci ay composition mhm. diwoo lotion bi génn ñëpp di ko classe. ba mu génn di waxaat. ñëpp naan kii lii lan moo ko jarale mu taxaw yaramam bi yëpp xolleeku mu def noonu. loolu rafetlu ma ko xamal tax rafetlu ma ko. Mhm. comme moom jaaykatu diw la. te mhm. loolu day yàq marketing nam mhm. même bu xoolee ko dafa war a def nii comme nit ñi nu ñuy def parce que jaaykatu diw yi. nii la ñuy def wala nit ñëw ñu def ko ni pli mais bu mu wanee image am yëpp ni lii moom ma def nii. yaa ngi dégg. parce que ñi ci bari. dinañ ko jënd mais ñi ci classe ñoo ëpp. léegi ma ma ma daal di vidéo maa ne bàyyi leen lotion baaxul. Mhm. bu ngeen demee ci cosmétique. loolu laa wax vidéo bi. Mhm. dinaa ko jëlaat dugal ko pour nit ñi dégg li ma wax. Mhm. boo leen ko dugalee ci cosmétique. bu ngeen demee ci cosmétique bu leen ko jaay bu leen ko jël. lotion néew ma dafa bon. parce que man damay def sama produit Kento. lotion mais comme boo defaree paan da nga ciy def. effaceur lotion. Mhm. bu ko defee mu doon effaceur dagg dosage bi. Mhm. day dagg dosage mais doo jël lotion brusquement. Mhm. di ko fompe say tànk yooyu parce que foor na fooraay boo xam ne mën na ko futt. da koy futt. loolu laa wax. léegi coow li bari. ku nekk ci wax. léegi jaaykatu diw yi civique que dañu dañ may wut. xamuñu lan lañ may amee. problème bi am na ku nekk génn di wax. ñoo xam ni musub xaw ma leen. problème bi bi mu amee. ci laa gis jaaykatu jiw yu baree bari. Mhm. xaw ma leen ñoom ñoom ma xam. Mhm. yàgguma ci liggéey bi. Mhm. mais def naa ci lu ne. maa ngi ciy sant yàlla. li ma ci am ak li ma ci néewal kenn duma ko xamal. maa ngi sant yàlla baax a baax xëy na dañu may gis nii démb ma toog ñu envoyé ma ay interview ay jaaykatu jiw. ñu naan dañu am preuve. pling baaxul. dugg na fii génn na fii. ba pare ñoom nee dañoo bëgg jàmm ñu jàmm. parce que nit boo bëggee jàmm. Mhm. nga nga wax ci ngay wax ni carrément lii baaxul te yow nga njëkk nit ki ci loolu. Mhm. bu dee jàmm ngay woote Sénégal da nga war a woo kooku. Mhm. ne ko ma chérie mu ne la ah nga ni ko lii ak lii ngay defar dafa fort defar lii ak lii ak lii. nga déglu kooku bu mu lay wax ba pare. mais bul jug pour yëgal sa niveau. yi wàccal nit ki ni niveau parce que man duma ko nangu gaynde la. duma nangu loolu. léegi mel ni tutu. mooy ki nekk télé bee tey jaay diw. Mhm. dafay woo ku ci nekk jaaykatu diw yi naan la defal nii defal nii pourquoi ñoom mënuñu def loolu. Mhm. mais chaque jour ñoom dañuy bëgg a jaay sa produit dañuy mhm. bëgg a jaay seen produit. yow ñu wàcceel seen produit. pourtant ñoom buñ taxawee ne ñoom dañoo am ay preuve. preuve ñu yor ba mën a taxaw di jajji jajji. nit ki yor na bu ko raw mën a toog. parce que maa ngi dégg Ndaya seen web mu naan boo ko bàyyiwul li mu la xamal su ko waxee. Ndaya mënuma waxal dara. man Mm-hmm. ndayaa mënuma waxal dara. Mm-hmm. ndayaa su ma waxalee dara ay waxanta lay doon. Mm-hmm. dama lay wax ne la lenn loo xam ba toog def ci arme xam naa fukk ba toog def ci arme. bu la caméra bi tiim nga fàttelu démb ku fàtte démb. fol la yomb. da am loo xam. Mm-hmm. te nee nga da ngaa am fit nañ la interroger nga wax ci man lu mel ni tara fatal ay ni mm-hmm. xam nga ni man yow da nga koy wax sax sa vie damaa mën a wax te waxantoowu maa nit ci àdduna mm-hmm. avec tir laa jox li ma xamal génnal nga wax ko bu boobaa di nga xam ni wari ba dem na këñ waxi mag jëm na ngañ càlli foofu jël la am te bu boobaa dinaa wax te wax du am fetal du jóg très bien mu mel ni sax dégg naa ko mu ni yow yi ngay toog naan parce que man du ma du ma inventé ay waxam laay wax mën naa ko génnee. Mhm. mu ne li ngay toog naan yaa koy jàngal moom musulaa woo di la laaj dara ci wàllu diw. man musuma wu toog ne man maay jàngal ndaya. Mhm. ndaya sama xarit la. Mhm. bu ko bëggee sama xarit la su ko bañee sama xarit la ñoo daan nekk ba 4 heures du matin. daan nañu mës nañu sax fanaan. mës nañu fanaan. parce que ñoo bokkoon groupe dañ daan def ay retrouvailles dañ daan def ay tour dañ daan def ay lépp maa nekkoon seen maire. Mhm. nekkoon seen président mhm. maa leen daan jiital. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg. kon moom bu taxawee di wax caméra yi dafa yomb daal lampe bi bu tàkkee ku nekk li nga bëgg a wax da nga koy wax. ndayaa bi muy doog a defar diw man mi woona ma ne ma maam boobu defaragul diw. kañ laa ñëw nga jàmbal ma mhm. Fanta Mbuub mi ngi taxaw man maa ngi taxaw ñuy def appel trois mu ne ma dangaa xees mhm. ma ne ko waaw ah, ma kañ laa ñëw nga jàmbal ma ma ko heure boo ñëwee ma jàmbal la mhm. bi muy defar diw laa ko ne bokk nañ ci ñu ko conseillé Fanta Mbuub moo ne ko jëndal lii ak jëndal lii ak jëndal lii moom la defaree diw ba pare nee na bi ma moom yor naa vocalam ba pare moom day wax ba pare te du xalaat man ma ak moom amoon nañu coow boo xam dafa am ku ma woo ne ma ndayaa nee na yéen bokku bokk ndey baay ma woo ko ñu expliqué bi ngay defar diw doon ñu woo di ñu laaj est-ce que fàtte nga ko. Mm-hmm. mu vocal ma ne ma boobu bi ma leen di laaj dama xamul. Mm-hmm. waaye léegi dem naa ba jàngi gën a gëstu affaire yi. Mm-hmm. vocal bi mi ngi ci man. mi ngi ma téye. bu ko neexee léegi léegi. ma montage ko ak li mu wax. dugal ko. daw ma loolu. te fu ma woo dama koy wuyu. dama bëgg mu xam ni man. ma mu ma mën a yàqee. mais coowal école école dis bi lan la. coowal école 10 bi moom mi ngi ciy wax. Mhm. mais moom moomul école 10 sax. Mhm. histoire bi histoire rek Thiendara la. Mhm. parce que moomul moom sax moom moomul école diis te mi ngi ciy tontu. kon erreur mi ngi noonu. parce que coowul école diis bi dafa am ñoo xam ni ay jaaykatu diw lañ. léegi dafa am ñoo xam ne ku ci nekk ak ki nga àndal. Mhm. sa nawle bu dee bu dee bu dee dafay def euh, direct. Mhm. da ngay gis ku ci nekk ak ki nga àndal. Mhm. da ngay taxaw. nga taxaw ci sa ki nga àndal nga gis kenn ku dugg ci commentaire yi wax lu négatif. bu waxee lu négatif dama naan la ma chérie nga ne ma ah ma ne la sa dernière kàddu. sa dernière kàddu ci sa vie. sa dernière kàddu ci direct Mame Ndiaye Savon. tey ngay mujjee wax ci direct Mame Ndiaye Savon tey ngay mujjee wax ci àdduna. va te chercher école 10 bloqué leen ko. Ah. loolu moo indi école dix école dis kenn moomu ko. d'accord. moom xam naa jikkoom. Mhm. Mhm. Mhm. day tontu lu mu moomul. parce que xel mi neexul. moom day tontu lu mu moomul parce que xel mi neexul. va te chercher école dix kenn moomu ko. commentaire yi ñoo ko moom. dañuy dugg wax lu négatif. ma ne leen kaa leen bloqué ñu liir ko ñu ne kii lii la ma ne leen bloqué ko marché dañ la yabal. dama lay ko mais dama lay wax geer ba li fa xewoon. Mhm. soo demee nga laaj ko san yaay guerre ba lan moo fa xewoon. ba pare mhm. wax la ci kii bi. Mhm. ne la va te certain école dix mais dafa neex. yaa ngi dégg. bu ko defee xale yi jël ko di ko wax. waaw dafa neex jël ko. ne ñoom ñoo ko moom. di ci tontu mu tontu naan va te certain fan. Abidjan parce que Abidjan la xam produit am lay utiliser. Mhm. parce que foofu la xam nee na fa lañ ko defaree formation. Mhm. xaw ma qu'est-ce qui se passe xaw ma c'est que mhm. ma ma ko sax mu naan moom emploi yi mu yor bokkul ak say employé moom ñi mu yor dañu am classe dañu dañu dañu diiñ mel ni ku lay mel ni ku lay saboté daal. moo yay nag. moo yey ndax ku fekk ay emprunté yoo ay emploi yoo xam ne amuñu ay bët moo yey naan dañoo am classe parce que déjà amuñu bët xamuñu nu ñuy jaayee ay chinois la yor <laughs> yaayay say employé ay chinois lañ man ay xale laa yuy tëbantu di mbalantu. Mm-hmm. siin la say employé jóge sing-cing la ñuy wax cang-cang ko kung-kung. Mm-hmm. parce que du ñu gis. Mm-hmm. seen i bët nii la def yaayay. waaye man boo nee jàkk samay employé neuf livraison fii bi ngeen di ñëw sànq fekk ngeen fi livraison yi. non fekkoo leen fi. non non neuf ñoo fi ñëw léegi nga gis kenn kenn ñëw gaari ñëpp liggéey nañ. te gis naa fi lu ma jaaxal gis naa fi waa Malika. te man maa nga dëkk ba Malika. Mm. te gis naa fi waa Malika. sama cliente la. Mm-hmm. ci man lay xeesale daa ñuul dégg bës bi bëgg a ñëwaat diw. Mm-hmm. mais moom ci ma connais très bien parce que piling bi am na fu ma jaar ak ma ñëw nga xamante ni mooy sa coalition yaak Adamo coalition ànd xeex Ndeya mu mel ni da nga def coalition di géré sa Adamo pour ngeen ñu attaqué ki nga xamante ni mooy Ndeya. sëñ bi. Mm-hmm. sama diggante ak Ndeya. aw maag benn jaaykatu diw problème. aw ma benn jaaykatu diw ak problème. Mhm. ndayaa laa am ak problème. Mhm. te sama diggante ak ndayaa histoire bu yàgg la. wala mhm. lan mooy seen problème. histoire bu yàgg bi moonte moom dafa gore gorewul rek mais Adamo bu ko daan tëggal di ko wax wax bu ñaaw ci group man maa ko daan jëlal revanche woo Adamo ne ko bàyyi li ngay wax wala ma retiral Adamo bàyyi ko. Ah, da nga ñu bokkoon benn groupe ñoo bokkoon benn groupe boobu Adamo kenn xamagu ko siwul. Ndaya dama lay wax bu la àdduna jaay maa nit ñi naan la defal nii wala defal nii bul def lu dul sa jikko. Mm-hmm. parce que ni ma mën a taxawee di ko waxal safaan. Mm-hmm. Sénégal moo ci gën. Mm-hmm. Sénégal moo ci gën parce que xolam dafa rafet. mais benn inspiré moo nekk ci moom. benn nopp la. comme tey yéen yi bu ngeen demee ngeen influencé ko ni ko waxal lii ak lii loolu lay demee. moom xam na aadamoo bi ko aadamoo di waxal lu bon boobu doon woon ci man. mook aadamoo musuñu juboo. ndaya ak aadamoo mhm. mu suñu jiboo mhm. bi coow li amee Adamo vocal na ma. Mhm. barki Seydina Muhammad dinaa capturer vocal yi tey dugal ko TikTok. léegi problème mu ndaya nit ñi ñi ngi naan ndaya maam Ndiaye Savon dafa utiliser day day day complot Adamo. pour mu xas ndaya. Adamo ak ndaya seen histoire du coow lii damay leeral waa Sénégal pour ñu xam. ndaya yaa ngi may déglu damay tudd sa tur. parce que taureau c'est taureau. Mhm. Adamo jour bi muy bi may wax sama live mu di ci dugg naan ma nañ la bàyyi vocal na la. bi mu la vocalee ne la yow lan nga jotee ak maam ndaw nga ne ko dugal sama direct dugal sama sama sama sama page TikTok nga xool ndax mës naa wax ci moom dara. Mhm. Adamo daal lay vocal ne la damaa bëgg ngeen liggéey. Mhm. liggéey leen ndax yéen ñëpp benn ngeen. Mhm. nga vocalaat Adamo ne ko Adamo. Mhm. mu ne la ah nga ne ko damaa bëgg. li nga wax dinaa ko def. parce que li nga def nit ku baax rek moo koy def. parce que yow nga yaa ngi ñëw fekk histoire. ngay régler fii di régler fii. lii ku baax rek moo koy def gërëm aadamoo Adamo xam na ni man dama pànk parce que loolu laa nekkee woon groupe mhm. adamoo bëgg coow li sedd mu jël vocalu Ndaya mhm. envoyé ma ko ne ma jàmm laa bëgg mhm. Adamo vocal ma ne ma maam ma ne ko ne ma vocal naa Ndaya damaa bëgg ku ne na liggéey liggéeyam ku ne lekk wërsëgam yéen ñaar benn ngeen lii bu mu leen jaxase Adamo lii la ma wax te vocal yi man sama portable bu vocal amee vingt vingt mhm. dafay dañ mais tey dinaa régler ba sama portable lool dootul dañ mhm. te aadamoo bis bu jugaatee woo naa ko jotuma ko mhm. dina ma envoyé vocal yooyu mu dugal ko ci internet bi pour ñëpp xam ne aadamoo jaxase taxu ko jug wala muy wax lu ñaaw parce que dem na wuti ji renfort waaw dem na wuti ji ñu génn di wax te xamuñu civique histoire bi nu muy demee ma leen di wax histoire bi du histoire tey Mhm. du histoire jaaykatu diw yi. Mhm. du histoire saabu yi. Mhm. man ak ndayaa la. jotewuma benn jaaykatu diw. jotewuma benn jaaykatu saabu. arrêté leen seen génn bi ak kalaasante bi. man xale laa. nit mënumaa tee trouvé ci réew mi. ngeen wax damay trouvé ngeen ñàkk wax damay trouvé. ndax dama leen ne man gaynde laa. lu ma sama fit bi lu ma sama bët bi may sama fit bi duma ko xañ. rafuma tiituma. daw ma lu mel ni tarafatal ay ni mhm. te ku génn wax ma lu rëy ma mhm. génn wax la jànjaari bosto njaay mhm. daw ma te duma ragal te lu ma nit wax e mbaa yëngi ni boo ko waxee quatre heures biir waajal ni da ngay jot sa tontu léegi léegi du ma xaar <laughs> xam leen loolu. <laughs> mu mel ni sax dégg naa sa TikTok nga naan fi mu toll nii mënuñ ci yow dara dañoo mujjee dem di la sëriñtu. waaw <laughs> parce que benn xale bu góor moo fi ñëw dawal otoom. kilifa la. kilifa la. Mhm. famille bi mu bokk su ma ko waxoon ñëpp xam nañ leen. Mhm. dafa yóbbu woon benn xaw ma benn jarbaatam. Mhm. la wax daf ko yóbbu aéroport di tëpp. xamuma xamul ku moom place bi. muy ñëw ci talikaro bi pour ñibbi. pour dem jëli bagage pour dem Sacré di ñëw sama place di ñëw. taal làmpam gis ñu taxaw. mu klaxonné. ñuy sol ku sol lu weex mm-hmm. ñaari ku góor ak ku jigéen ku nekk lu weex la sol mm-hmm. ñuy sotti gàllaaj di wis mm-hmm. léegi kooku sama palaas kooku kala kooku euh, teg leen faar faale wuñ ko mu ne ñu daw nee na moom mu bëgg leen a topp nee na tiit na mënu leen a vidéo mu wàcc li ñuy wis ci place bi mu xeeñ mu am ku dëkk ci koñ bi ku tudd nday caam xaw ma ko nday caam yi muy wax xaw ma ko teguma ko bët xaw ma kan la nday caam ba ma dee dégg nga dimbali ma pour ma xam la parce que xaw ma mu dem expliqué ko kooku ne ko kan moom moom place bi moom yëgul sax coow li xale bu góor boobu parce que kilifa la yëgul coow li mhm. ko ne ko place bi diw moo ko moom mhm. mu ne ko dama fee romb cinq heures du ñu fi sotti ay gàllaaj mhm. te bi ma ñëwee sama place am na caméra bi ma ñëwee pour pour xool caméra yi damaa fekk ñu juutal caméra bi caméra baa ngi ne le moo ngi nee ci bunt bi moo ngi ne le fekk ñu juutal ko nii d'accord léegi yow boo tàppee cinq heures du matin écran bi da koy gis ci suuf samedi la. Mhm. la affaire bi am. Mhm. ci laa génnee ma wax ma ne lii est que jarati na ko. Mhm. sama jëkkër génn. ni ma lii jaratu ko. man xam naa ne yow ambianceur nga. mais ñoom xëy na lii am na fu mu leen toll ba ku ci nekk mi ngi génn di wax. reculer. nga toppatoo sa liggéey. d'accord mu mel ni daanaka li ñu mayoon ci waxtu léegi mu jeex ma ñëw ci sa sœur bi nga xamante ni gis nañ mu génn di jooy. que nii vraiment taxaw bi nga leen di taxaw ak jàppale bi nga xam ne yaa ngi leen koy jàppale. waa parce que moom dafa tiit man maa ko mag. Mm-hmm. man depuis ma nekk xale dama couvrir sama famille. Mm-hmm. parce que ñoom ñoo taxoon may dem di ambulant. moom mii yàgg naa ko xotti boobu de déco tax moo amoon mètre mille francs. Mm-hmm. dama yàgg sonn ci ñoom. ñi xam li may sonn ci ñoom. bi coow li amee bi kii wax gàllaaj bi di ñëw fii la fekk gàllaaj bi. fii la ko fekk. kooku dafa wax loolu moom avant direct bi lay jooy di jooy jooy ba ma nekk kon du ma direct. Mhm. mu ne naa direct léegi mu pare direct mu ne ma may ma tuuti ma wax mu toog di wax xolam fees mu jooy. ma wax Sénégal nañ ma bàyyi ma liggéey. Mhm. parce que ki ko séqal du ragal parce que du ma daw yotaa mhm. mais lii du loo xam ni guerre la. parce que ku ci ne sa téléphone nga yor rek di wax kenn mhm. dóoranteegul mhm. kenn rayanteegul mhm. kenn waxanteegul wax ju ñaaw kenn xasantewul kenn te man ku ma xas ma xas la ku ma wax lu ma tee añ doo ndékki doo reer te doo xëdd man maam Ndiaye Savon dama leen koy wax ku ma wax lu ma reer doo xëdd doo xëyee doo ndékki doo añ bu doo reeraat daal la comment ngay mujj parce que du la bàyyi mu seet. d' mais tey tey tey nooy waajee confrontation parce que dafa mel ni xam ni na ñoom ñoo ñoo jàkkaarloog yow. <laughs> non confrontation bi maa ngi koy waaj. Mm-hmm. mais comme bisu ngoone ñi ma invité soxlawu ma woon ñooñ mm-hmm. parce que am na ci koo xam ne sama xarit la. Mm-hmm. léeg-léeg nit ñi dañ koy ruux pour mu wax mais dama koy leeral ni moom moom taxuma ma jóg. ñeneen ñoo ma tax a jóg. Mhm. parce que doomu Pikine la man doomu Pikine laa. Mhm. te soutien de famille la man soutien de famille laa. kooku taxuma jóg man. kon da nga bëggoon confrontation bi ak Ndaya. Ndaya invité nañ ko confrontation. invité nañ ko. Mhm. mais comme ñi génn di wax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu ci liggéey bi ku ci nekk génn di taralari ñoom soxla woon naa leen ci confrontation bi. Mhm. mais si xam ne yow la yow yow yow la réew mi bëgg. man lañ bëgg. Mhm. man lañ bëgg. Mhm. man lañ choisir. ndeysaan mu ngi doon nag moom lañ amoon suñu invité vraiment mu nekk ko disponible ñu ngi lay jégalu nag jël nañ sa temps toog fii vraiment nga war a recevoir ay clients am na ñu toog fële di la xaar. Mm. nga may ñu loolu vraiment ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm tey lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax soppe aussi tamit. waaw li may wax mooy. dafa am benn journaliste bu génn mu ne euh, état dafa war a wax ci jaay diw yi. Mhm. parce que ñu ngi rayante dugg na fi génn fi ma lay wax ma loolu jarul état di ci wax. Mhm. parce que rayante wuñu dóorante wuñu ay jaasi dóorante wuñu ay dara. Mhm. téléphone lañu yor arme la buzz la. kaf la ak foo ak reetaan. mais àdduna du yàgg ba kenn wax kenn sa moroom loo xam da koy gaañ. man surtout man. su may kaf ak jaaykatu diw yi. ma xam ne lii neexu la damay reculer. noonu lañ ma yaree. Mhm. di wax ne état nañu jàppale jàppale bi mooy. Mhm. ku ci ne ñu yamale la sa limite. Mhm. te ñun jaaykatu diw ñu jéem a tàppe xol yi. parce que mënuñu soxoree nit ba kooku bàyyi. mënuñu iñaane nit ba kooku bàyyi. te nga dem ci sa nawle dem sëriñtu ko dara dal ko. lan la lay apporteel. du la apporteel dara. mais leen ñaan képp kuy jaaykatu diw dama la mës a tooñ dama la mës a wax loo naqari maa ngi lay jéggalu. parce que xam naa ni. Mhm. am na lu leen naqari seen bi parce que damay kokkaliwaat ndax damay taxaw naan mbaa jaay ngeen parce que loolu am na ñu met parce que am na ñu koy génn di ko mhm. intervenir. Mhm. damay kaf. damay foo. damay ambiance. man bu dul jaaykatu diw yi mën naa jaay sama produit parce que sama marketing laa nekk. ku nekk ñoom seen marketing bu ñu taxawee di wax peut-être ni ñu mën a waxee noonu lay waxee mais man sama marketing fëgg sama tënn la sama càkk yëngu la. noonu laay marketingee. mais waxuma ak kenn classuma kenn. damay ambiance mm. bu dee ambiance bi dafa dem ba dafa am ñoo xam dañ ciy gis seen bopp mm-hmm. maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. Mm-hmm. di leen wax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ku am doo yóbbu beneen dëkk fii ngay bàyyi ñu doon jàmm mhm. doon salaam mhm. comme ni ko tuuti di def di mhm. woo ku nekk ñu pour ñu sëq jàmm te maa ngi gis kii nekk mbuur mi ngi live naan nañ leen nekk ci jàmm kon jàmm jooju nañ ko jéem a saxal xam ni ki aar bi kenn mënu cee génne kenn d'accord mu ngi noonu moom la ñu amoon euh, mu nekk euh, Ndeye Ndiaye Savon vraiment nekku ku baax nekk ku disponible moom lañ leen indiloon tey ñu ngi leen di jox yeneen dig daje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 372 96 96 wala nga def 77 285 38 38